来，来，来看。 la la la daa

غير الأنام Gazo

la لكسوا لن فوقنا رحمتي فلك شكري يا ya يا الله وهبت لي منك سوء لن فاق مقالتي فلك إياك bismillah inawa Auzubillah ya kalami rasyidan di jaajëfal suñu internet yi di ziare ñëpp di rafetluwaat jotaay bi te ñu woon si publication bi ñu doon amal chaque dimanche di ko ànd ak waa messagerie sociale ñu ngi siy sant bu baax a baax di rafetlu taxawaay bu baax a baax a baax di ko defee rek dañuy jox dañuy jox suñu jëwriñ yi du ko defee ñu daal si jàllale ay kàddu waaw. day jox gaay

ci lañ tok ne comme que ñu bëri dañuy joxe ndogu pourquoi pas ñun tamit ñu def ko légui pourquoi ñukay def nak chaque dimanche wala chaque euh, ben jour ci semaine bi pendant chaque semaine ci wéru koor gi nga xamné 4 fois lay doon dañ ne comme que temps amul te mën nañ def lu spécial par rapport ak ñenn ñi mo tax ñuy jël chaque dimanche wala chaque vendredi ci semaine wéru koor ci 4 semaines yi ñu def ko chaque année nak dañ ko daan def di joxe ndogu rek mais ren mom ak en collaboration ak daara Munawir Sudur dañ ko gëna yaatal mo am vivification comme tour bi niko ko señ euh xalif général señ muntaha changer waye tour bi jàppuñ jàppuñ changer waaw te yaakaar masawu saaxi te yaakaar nañ initiative bu rafet la ta ñi ngi ñaan inshallah dewen ñu bash gëna yaatal mbir mi Munawir Sudur teewaat ñëpp teewaat gën a yokk bu jaree sax ñu dugg ci biir kër yi di jox ñenn maire yi wala ñenn paa yi nga xam ne seen doole tollewul yeggul seen poche ci ci ndimbal kenn bañ a yëg ñun daal lool lool lool rek la mooy suñu objectif daal waaw lool suñu objectif Mercedes daal boo xoolee daal weeru koor gi lu dul social ñoruñu ci waaw ñu ngi sant di gërëm macha allah Cheikh Saliou Fall moom moo yore moo nekk vice président Mercedes social dégg ngeen kàddu yum si sànni am na solo lool waaw di ñaan saa borom liggéey bi yàlla na ko saa borom barkeel ko lool barke Seexu Xaadim incha allah wa ko defee dañ jox sëñ Xaadim Ndiaye moom mi nga xam ne mooy yore organisation Mercedes sociale lu jëm si wàllu organisation yëpp moom si loxoom la nekk lu ko defee dañ koy jox mu sànni ay kàddu si liggéey bi wax liggéey bi nu muy déroulé yëpp ak ñoom mbébét gi ñu si am bisimilah suñu xaar. ah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seen bi di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul suñu yaakaar tey ak ah, bi mooy troisième édition Mercedes sociale di joxe ndogu si weeru koor gi di ko sant yàlla nag di ñaan yàlla chaque année ñu koy yokku di def ay xéwal yi gën a kawe yi kuréel yi mag yi ñëw di ñu jàngal si kàttanu yàlla di ñaan yàlla may ñu mucc ak gudd fan ak wér ak xéwal gi ñu koy mën defee chaque chaque année incha allah si kàttanu yàlla jërëjëf jërëjëf say xarit am na solo macha allah. waaw ah, du ko defee day jox suñu jëwriñ Abdou Sall moom mu nga xam ne moom mooy mooy mooy DG bi mooy prési Mercedes sociale moom mooy président bi waaw ah, Cheikh Saliou Fall nag mooy vice président bi moom mooy président bi boo defee mu mu wax si liggéey bi wax si projet bi bisimilah si Abdou Sall. waaw bon biñ nuyoo ñëpp sant ñëpp dañuy sant yàlla aussi boole ci ah, di wax ne ay xale lañ rek xamuñ dara dañuy góorgóorlu rek. gis ne àdduna dara neew fi lu dul def lu baax jëf lu baax liggéeyal borom bi liggéeyal sëñ bi ñu nañ ci jàpp waaw lu ñu am bokk ak jaamu yàlla yi ja bokk ak taalibe borom Touba yi waaw di ñaan rek ku ci gis ku ne sa bopp ku nekk nekk rek mën nga ñëw parce que ñun moom ay xale la ñuy tuddee suñu bopp Mercedes mais tamit dañoo làqatu lépp ci ginnaaw sëñ Touba parce que ni ëpp ëpp ëpp ci ci biir ci biir Mercedes mën nañ ne ay xale yoo xam ne lañ si tey sëñ Touba lañ jokk wa fo len fek ñi ngi waxtaanee mbir seigne Touba ñi ngi ci xasida yi wala ñi ngi wax wax magal wala ñi ngi wax wax kër seigne Touba bi kon ñi ñaan rek lepp lepp luñ ci bëgg rek lepp lepp luñ ci untu rek yalla defal ñuko ci barke yoonte bi salaahu wasallam wa ñi gëreem ñep di sant ñep tamit wa inshallah allah. macha allah si Abdou Sall amna solo solo loolu macha allah jërëjëf. C'est de message social ñi séddale seen ndogu ko am a saa su ne euh, dimanche waxtu ndogu jotee daanaka gars yi nag góor yàlla nii lañ koy liggéeyalee waaw liggéey bi lépp gërëmu yàlla rek lañ si ut waaw ni koy defee nii am na solo lool dugg si gox bi dem si kaw tali bi séddale ndog yi am na solo lool lool macha allah. léeg-léeg mën nañu jël sax yaa mu ngeen ma foto waale foofu. waaw Fall. ñu ngi saa yaa ma ñu ngi saa baax nga toog sant baax yéen si jàmm yaa bëgg nga sànni kaddu si liggéey gone yi. Ah, liggéey ah, dëgg yàlla dañ leen di ñaanal rek de ko dañ leen di ñaanal rek yàlla gën leen a taxaw gën leen a dëgëral ci yoon sëñ Tuubaa bi nga nekk ñu ne kontaan nañu ñu seen i ndax wax dëgg yàlla bu ngeen nekkoon ci la leneen dinañu am gàcce waaye yoon wi ngeen ne dañ leen ci encouragé bu baax a baax di ñaan yàlla sëñ Touba mi nga xam ne dara taw ko yàlla leen fayal boppam. da ngeen jëf kontaan nañ trop wax dëgg yàlla kontaan nañ ah, jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah liggéey bi am na solo lool lool lool waaw yal na yàlla barkeel te nangu lépp barkeel Cheikhul Khadim waaw. Eh. Ngor. yow kàddu si liggéey bi. Ah, di séddale ndogu li sëñ Youssou. waaw mais xanaa ñu santati rek. te naan alhamdulilah li ngeen def xéewal la. yàlla nañ suñu borom fay. yàlla defal leen jàmm defal leen xéewal gi ngeen koy mën nag di defee nag. incha allahu rabbi yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla nangul suñu koor. barke borom Touba xewal ah jaajëf suka suka ni bana na a ah. ah, suka Catherine Baye Fall bu mag bi Seigne Modou Joola mu sànn kaddu ci liguey bi <laughs> mom Baye Fall la moom Baye Fall la. ku baax doo xool buuba rek jàpp se rek xolal jëwrin buuba jàpp se rek Baye. jàpp si rek <laughs> xol buuba barki sëñ Tuubaa. bisimilah rahmaani rahiim barki borom Touba ñoo ngi nuyu ñep di sant ñep di gërëm ñep ci barki Seigne Touba añu mom dañuy jëm rek barki Seigne Touba mënuñ dara nak lepp gaay la rek barki Seigne Touba man mom maa nongo nongoo gars yi daal maa ngi si ginnaaw gars yi man gars yi may jox nii may dem nii rek man dama si lenn de ñoom papa ngi ne la barke Serigne Touba Mbacké gars yi maa seen lu rek def ñaan rek ñaanal leen ngeen yàgg fi loolu dëwér ndax li am na solo li moom wax dëgg na yàlla ñeen ñaanal mu jëm ca kaw ca kanam rek waaw ñu fekk ay ati ati ati ati at yàlla dafa leen yokkute li ngeen ci bëgg ay xéwal suñu borom defaral leen ko ci waaw suñu borom di leen ñaanal tamit mu def leen ay dëgg dëgg dëgg taalibi Serigne Touba waaw defal ñu ko ñun ñëpp waaw ca kaw ca kanam rek ci lu baax ak saa liggéey bi ah waa gis nga de am murit moom jafee ndigal rek sëñ Touba Mbacke liggéey sëriñ Touba moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek te instant yi lii moom dañ koy rafetlu li nga lii dafa rafet ñii ñi jéex xolo ñii di ñibbi ñëpp lii nga ñëw fekk leen si télé bi nii jox leen ñu ñu ndogu lii xam nga rek dañ naan jërëjëf sëriñ Touba rek jërëjëf sëriñ Touba xam nga rek ñu dañu mënul wax nii mënuñu wax moo tax kàddu gi jarul muy bëri waaw ñuy jégalu lu bëree bëri nag. jërëjëf boobu jaajëf. damay jox góor yàlla rek ñu sànni kàddu si liggéeyu weer koor gi ñuy séddalee ndog yeeg yi Fall Ndiaga bisimilah. waaw jégal ñu ko rek faal waaw jégal ma ko waaw waaw barke Seex Ibra waaw jaajëf ah, alhamdulilah muntaha musalli alhamdulilah abada ala lazi bihi xonda abada ñu ngi dellu santat yàlla bu baax di santat borom bi subhanahu wa taala bu baax a baax baax moom ñu dafa laatee tawfiix bi nekk suñu ñaari ñaareelu dimanche di ko ànd ak message sociale ak daayira Munaawiru Sudur doon séddale ndog yi gis ngeen niñ ko ni ko gars yi amalee mucc na ayib te di si sàkku ngërëmul saa borom waaw di ñaan yàlla saa nagu ñëpp waaw sant nañ gërëm nañ ñëpp kon du ko defee ñu waajalaat dimanche prochain incha allah bii di ñëw sooy borom wa wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf